ci màggalu Touba gi kërug téere gii di les éditions nan moo leen di présenté ay xéewal yu ngeen mën a yóbbaloo waaw mu jëm ci ay mooli xasida yu mucc ay ay téere yu Serigne Touba Xaadim Rasul bind ñu firi ko ci français ak ci wolof nooru daaray ni bu taaru lool te murite majmuuxu bu def jaalibatul maraaxib mafaatihul bisri taysiir wa asiir ak wakaana xan waaye ñeenti xasida yooyu benn boo ci bëgg def nañu ko ay mool yu rafet te murite lii di ma masaalikul jinaan di téerib sëriñ Tuuba bu siiw boobu ci tasawuf te ñu traduire ko commenté ko ci français am nañu ko ak ñetti téere seexul xadim yi ñu firi ci wolof muy multazadu si xaar jawharu nafis jëm ci ngëm ak jaamu yàlla ak nahju jëm ci yar ak teggin ak yeneen téere yu ngeen yittewoo les éditions nan lépp loo xamante ne bii jaay nañ ko ci téere di pour cent yi dañ koy dugal ci liggéey bi nga xamante ne bii sëriñ bi sumb na ko ci wàllu njàng ak njàngale yéen ñi ko soxla bu dee ci Dakar mën ngeen a dem boutique islamique albisru jàkkaarloo ak jumaay masaalikul jinaan ci kolobaan ci wetu càmmoñ boutique islamique albisru nekk ci wetu marché njaareem bi jëm stade ba wali bu dee ci dëkk bu sell bi di Touba mën ngeen faa amee téere yi ci maktab Touba Daaru Saam ak Baye Serigne Lay ci wetu bassin Serigne Moutada maktab Serigne Mandiaye Kanté nekk ci pencum Daaru Xuddoos jàkkaarloo ak siège village bi ak maktab daaru minam xasaayit ak sëriñ Mor Ndiaye nekk ci pencum daaru minan kër sëriñ Basiiru Mbàkke xaadim rasool téere édition minan barab yi yépp am nanu fa mën ngeen a woote itam ci numéro yi nga xam ne benn bu ci nekk ànd na ak whatsapp muy 77 674 29 45 wala 78 148 17 17 wala suñu boutique en ligne ci daarayni point com mbokki jullit yi xarit yeeg soppe yi ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Khadim Rasul bu baax ñi ngi nuyu di siyaar Serigne Mountakha dañ ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér mbokk yi seetaan Touba Vision ñi ngi fii ci buntu kër Serigne Fallilou ci plateau spécial yi nga xam ne ñu ngi koy am fii ci buntu kër Serigne Fallou di ci waxtaane ak ay mbokki taalibe ay mbokki jullit ci ay thèmes yu noonu tey jii leen ànd ak sunu mbokk di boroom xam-xam ba Babacar Mbuub waaye seq ko ak Cheikh Ahmadou Bamba fay ñu jëm ci wàllu laaj yi nga xam ne moom lañ war a waxtaanee tey muy Touba ak politique maanaam bu nu waxee loolu dafay mel ne kon Serigne Touba bi mu rëddee dëkk bi dafa am lu fi bëggoon am lu fi bañ leegi ndax li mu fi bëggoon ñu ngi koy sàmmonte waa wala déet xam naa bu ñu yaatoo ci biir waxtaan wi danañ ci gën a xóot Cheikh Ahmadou Bamba Faye kon lay jox. nga nuyoo rek doo ko présenté suñu gan gi. salaamaaleykum jërëjëf seen Cheikh Dieng euh, mbokk yi nga xam si ñoo ñu bàyyi xel ñu ngi jiite suñu nuyoo sëñ Mountakha Mbacké xalif général kullu murit di ko ñaanal suñu borom bi yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér noonu noonu la koy ñaanalee mboolem kilifa diine yi xam si ñu ngi biir réew mi te dara leen nekkul seen yitte lu dul euh, liy doxal kanam diine l'islam sëñ Cheikh ni nga ko waxee euh, mbokk yi xam yéen ñuy bàyyi xel sànq ba léegi ñu ngi dikk ak yéen ci ay thèmes yu diversifié thèmes yoo xam si si sëñ jaar-jaaram ak jàngale ci société yi nga xam ne jot nañ fay nekk ci liggéey yi xam si am na relation ak Magal Touba waaye naka noonu noonu lañ amee yéen a dikk ak ci thème bu am solo muy Serigne euh, Touba dëkk bi Touba ak politique ñu bëgg cee dalal sëñ Ababacar Mboup wax dëgg yàlla moom nekk nag kon koo xam si kenn dootu ko présenté ci ci wàllum média ci li xam si moom ciy yëngu euh, xale day dikk ak moom rek di ko nuyu Euh, gannaaw ba mu dikkee euh, dalal ñun ci plateau bi nga xam si mbokk taalibe yi wax dëgg yàlla dara taxul leen a jóg lu dul njàngal ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu nangul ñu ko lool kon sëñ Babacar gannaaw bañ la santee ci loolu ñu ngi lay nuyu di la bàyyi xel di euh, nuyu mbokk yi nga xam si ñoom ñooy bàyyi xel Touba Vision aouzu billahi bismillahi inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billahi Euh, hasbiyallah laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadinil makin wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwan wa tamkin alhamdulilahi rabbil alamina bila adin bi shukrin wa zikrin yafifani bala lahu shukuri wa zikri ba'da mahmadati nimal qabul lazi tawbilahu qabila hamdi wa shukri wa zikri lillazi karaman ministara sirahi irada man qabula asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Euh, mbokk yu tedd yi noo ngi leen di delloo fay nuyoo ba gën a tedd te gën a sell di nuyu waa Touba Vision bépp euh, di nuyu tamit borom dëkk bi muy mun taxa Mbacké di ko ñaanal ay ndam yoo xam ni dana kawe mboolem njortul kuy njort te tabbi ci tawféexi sëriñ bi ci barkeb raafaxtu fi xidmati tawféexi xaalixina te loolu yàlla na ko ànd ak mbooleem njaboot gi yëpp te ànd ko itam ak mbooleem taalibe yëpp di rafetlu aussi vraiment ñi ngeen di def di am mbégte aussi ci màggal gi yàlla mi nga xam ni lu muy def loo rekk kay som moom mi ñu may ñu fekke ko ba man cee santale sëriñ Touba yàlla ci lii mu ko defal te am xel mënu koo xiyaas aw làmmiñ lott na ci tudd ko ab noppit lott na ci mën koo dégg ba tax na kon ñoo ngi sant jël sunu cant sóob ko ci cantuk sëriñ bi santle ko yàlla ci li mu ko defal ci bis bi xam naa loolu moo doon nuyoo bi incha allah ba ba ñuy dugg ci kii bi ci jëmmi waxtaan bi. Euh, jërëjëf sëñ Babacar Mbour wax dëgg yàlla ñu ngi am mbégte ak contentement ci déplacement bi nga xam ne dëgg yàlla ñëw lépp bëgg a ànd ak mbokktaal bi nga xam ne ñoo ñooy bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew waaye sëñ Babacar comme ni ñu ko waxee ak yow sànq dañoo bëgg waxtaane euh, thème bu am solo. muy Touba e politique xëy na ñu bari ci mbokk mbokk taalibe yi bu ñu déggee tur politique dëgg turu dëkk bu sell bi dana leen xaw a dana leen xaw a jaaxal sëñ Babacar li ñu bëgg a dikkee yow mooy terme politique étymologiquement nan ngeen ko mën a tekkalee leen. waaw xam nga euh, politique d'abord baatu français la baatu français la boo ko doon xool xëy na ci arab siyaasa ngay wax. ginnaaw baatu farañse la nag dañ koy jéem a seet ci làkk woowa lan lay firi ndax man jàpp naa ni jafeñ-jafeñ bi am ci dégg ko yëpp mi ngi nekk ci baat bi rek politique ay jubluwaay ba noppi bokk pénc mi nees ji mën a def ba saytu seen yitte yooyu ak di saafara seeni yitte ak di leen taxaw te deesu ci lor kenn loola rek mooy politique dafa am koo xam ni dañu ko laajoon benn borom xam-xam mu doonoon koo xam nit yoroon na ay responsabilités yu mag ci réew moom mu nekkoon ba jiite woon na ko sax bindee ko lan mooy politique dafa ni mooy saytu ay nammel ak i xemmemteef yu yu safaanoo c'est la gestion d'intérêt en conflit la gestion d'intérêt en conflit ndax tey kenn natablewul ni nun murit yi am nañ lu ñu bëgg xëy na ñàkkul ni it am na ñeneen ñu nekk ci réew mi te am nañ lu lu leen yitteel donc kon saytu gi nii saytoo ndoo mboole seen loola loolu mooy politique euh, gis naa nag ni baat bi ginnaaw bi mu doonee farañse indi jafeñ-jafeñ ci nit ñi ñu bari te jànguñu français am na xissa boo xam ni bokk na ci li tax ñu bari xaw a ragal baat dañuy wax ni Blaise jaañ mas na ñëw ci sëriñ bi ca njaareem jaar ci Cheikh sàmba mu dugal ko bi mu dikkee sëriñ bi laaj ko lu doon ay tànkam mu ni ko man de damay politique sëriñ bi ni nanu sëñ Massamba bindal politique mu bind baa laam taatombe ak keef mu ni ko baa gi mooy baxnitul minallaahi laam gi mooy laxantullaahi taa gi mooy tatku salaati keef gi muy kufur billaahi loola nag képp kuñ ko wax doo mën lu dul jël say dal daw buñ la waxee baatu politique waaye li ñuy fàtte mooy te jafeñ-jafeñ la bu ñu am mooy luñ la man di wax ne la sëriñ bi wax na ko wala yonent bi wax na ko wala yàlla wax na ko dañoo war di jàngat ci contexte bi ñu ko waxee woon ba pare daf ci am solo parce que ci contexte ba boo ci delluwul mënoo dégg wax fi mu ne alxuraan ñun ñëpp kenn nattablewul ñi inna anzalna alaykal kitaaba li naasi bil haqq ci yàlla la bàyyi ko jëm ci nit ñi jëmul ci yonent bi de daa jaar ci moom rek ci nit ñi la jëm waaye man ci naasu laa bokk waaye alxuraan am na ci loo xam ne man concerné wu ma fi nekk nii il faudrait que nit ñi comprendre lool bu nee luy wax ci yéefar yéeg ñay ñoo ñu man saa yoon nekkul ci loolu ndax bokkaale wu ma nekkuma ci boobu yi fet du lekk kon il faudrait que ñu jéem a jàngataat lii sëriñ bi wax ci baat yooyu ak kam doon waxal boo xamee koy Blaise Diagne 1977 la ñu ubbi loge bu mag fii ci Tëngéej ba 2007 de dikk na fii senegal ñu doon fêté 30 ans wu la loge Blaise Diagne mu bokk ci franc-maçon yi gën a mag ci biir Afrique kon bu nee damay yëngu ci damay doxal bu ko sëñ Touba tontoo lool da nga xam li tax mu tontu ko waaye wax jooju man sama yoo nekku ci sëñ Touba waxut ak man ndax bu buñ doon wax léegi bu jumaa ji nodd naa teg micro bi te bu julli jotee damay dem julli ji kon tar ko salaati ga la ma ca génne moom a musal ca la ca des kon il foo que nit ñi jéem a comprendre loolu beneen bi ci des it ma gis ni tax na yeneen communauté yi bu dee suñ mbokki tiijaan yi wala ñi des amuñu problème yooyu ndax xam nañ enjeu yi enjeu yi danaa ci dikk léegi mais ñun sëriñ bi bi mu nee ñokket jóg dafa am ay réalité yu fekkoon ci biir réew mi muy ceddo yi fi nekkoon kenn ku ci nekk am na lu ñu doon doxal tubaab bi ñëw faagaagal leen sëriñ si fi nekkoon am na luñ doon doxal di bëgg a rawale pas-pasu nit ñi tubaab bi ñoo faagagal leen alors kan moo fi nekkoon tubaab bi moo fi nekk te li ci sëñ Tuubaa wax lu leer la boo demee ci ilhamu salaam dafa wane ni wa baadu fa majuusu wa nasaara saaru li iblis al xawi usaara ginnaaw bi ba ginnaaw mooy yomu njëkk a tàmbali ca xasida ga rek alhamdulilahi ala al imaani islaami wa ihsaani wa afdalu salaati wa salaami ala nabi sababil aman ila axirihi ba agsi ci bayit boobu juróom-benneel ba ci la wax ni ginnaaw ba bi seytaane suñu borom bi mu ko dàqoo génne ko ci yërmandeem ci la def ay pexe ba jàpp majjoos ak nasaraan di leen manipule kon gis nga sëñ Tuba conception bi mu am moom ci lim fi fekkoon ak gis-gis bi mu am kon képp ku ne yaa ngi yëngu ca loolu bu la waxee nii ci politique. mënees koo dégg ba tax na kon dafa am jàngat bu yaatu bés ci war a def waaye mu ne su ko jël rek globaliser ko dugal ci ñëpp politique kenn ko mënta araamal yonent bi da ko doon def man la mission politique mission prophète yi sax c'est politique c'est purement politique d'ailleurs damay gis nii li tax ñu bind doomu aadama sax c'est politique nit doomu aadama nit créature politique la ndax bu fekkente ni suñu borom wax na ni inna aradna al amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha linsaan innahu kaana zalumun jahula loolu c'est foncièrement politique ndax suñu borom gaaral na ab yan ñooñ kaw ñooñ suuf ba ci tund yi ñëpp du caageen ni euh, euh, gantu négativement la waaye loolu dafa bokkul ci ni leen waajale moo tax attanuñu mission boobu waaye nit mi ko attan moom nee na jël naa ko ndax mënta am am xel ak xalaat ak coobare wax loo xam ne neexut yàlla loolu lépp ci namelu yàlla la alors bi loolu amee lañ ko gàll loolu te liñ ko dénk mooy wala tufsidu fil ard ba'da islahiha jinne lañ njëkkoon a dénk suuf yàqu na defaraat nañu yéenay dem nag mais feex leen boobu suuf yàqu mais loolu c'est politique il faut nit ñi am ay taxawaay alors li nekk enjeu lan la li nekk en ba bala ñoo dëkk ci Touba mooy ñun ñoo ngi toog fii di wax li tax ñun ñëpp ñu am xel mu dal ci toog fii di waxtaan lan la mais du kaamin yi ni jàng Égypte gee dañ fay jàngi kaamin Indonésie dañ ko fay jàng d'ailleurs mooy réew mi ëpp ay jullit ci àdduna bi et pourtant terewul ay na dafay am leneen di fa am mais li ñu may kaaraange gi donte sëñ Touba bi muy sañ ci dëkk bi nee na Touba xarasahallahu yàlla aaral na ma ko terewul Cheikh Abdoulaye dégg na ko sëñ Saliou Mbacke dégg na ko waaye gendarmerie la samp fii te pourtant nee na yàlla aaral na ma ko sëñ Saliou dégg na wax jooju te kenn gënu ko koo xam terewul police la samp fii mais jeunes yi ñuy gis fii lan lañu def ci dëkk bi kon bu fekkee yàlla aar na ko kañ moom nañ bàyyi lépp dox rek loolu mooy politique mooy nit ñi mënuñoo ñàkk kaaraange ginnaaw mu ñoo ñàkk kaaraange dañuy jël ci nit ñi par rapport ak seen démb par rapport ak seen mbatit maanaam seen culture par rapport ak gis-gis bi ñu am ci ëllëg ay ñu bëgg ci seen penc ñu nos ko taxawal ko loolu dong mooy politique dara lu ñaaw nekku ci dara lu aram nekku ci d'ailleurs ñiy politique ñooy ñi gën ci kaw suuf si ndax sayidul xaw mu xaadimoom sayidul xaw mu xam beneen bi ci des yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni man lam yahtam bi umuril muslimina fa laysa minna képp koo xam ne mbirum jullit ci yitteewul la bokkoo ci man wala ñeneen ñi wax ni wala laysa minhum bokkoo ci ñoom kon loolu moo lay wax ni la kenn defu fi lu gën politique kenn defu ko boo tëjoo di wérde la nga wérde sa bopp la boo fanaanee defi rakkaa sa bopp la boo durusee fii daalibaatu maraaxib wala nooru daarin yéet sa bopp nga ko defal defaloo ko keneen par contre taxaw gi ngay taxaw ci nit ñi ba assainir environnement bi ba tey yi doo génn ñu agressé la taxaw gi ñuy taxaw ba ku wopp ñu mën laa faj taxaw gi ñuy taxaw ba fi mu nekk nii ku bëgg a jàng ñu jàngal lax nga am xam ba nit ku nekkoon ci sauvetage ñu man koo sauvé loolu man la loolu kenn def fi lu gën a kawe te loolu moom mooy politique. jërëjëf sëñ Babacar wax dëgg yàlla euh, sëñ Cheikh xam naa ni mu ko leeralee wax dëgg yàlla leer na ñi dikk naa ñun ci terme bi nga xam si moom mooy politique mu xamal ne baatu français la waaye leeral ko ci leeral goo xam si man nan bi ñu ko doon tënkaat mooy politique liñ ci mën a xam ci lu gàtt mooy nan nga mën a def ba sab askan lépp lu njiitewoo moo xam ci loo xam ci li leen lu dundal la wala li leen di aar wala ñu yor seen wàllum pajin loolu lépp nga daal ciy taxaw ba mat sëkk. waaye sëñ Babacar euh, gannaaw ba nga dikkee ñu ci ci leeral goo xam ci politique ñu ñëw ñu ci tuddee la déformation du terme maanaam ak déformation du terme nan lañ jëlee politique léegi. trans euh, transformé ko ba nga xam si koo tuddal politique rek ak jamono jii ak dëkk bu sell bi ñu jàpp ni li naan euh, l'univers spirituel et temporel mënuñoo composé. mais malheureusement déformation bi yemul ci wax rek dañ koy jëfe sax léegi politique mooy wax lu dul dëgg politique mooy wor politique mooy lu ma wax léegi wax ji engagé wu ma yow mi ko jàpp rek la engage mais loolu mooy mooy mooy yàqu gi gën a suufe ci yàqu gi mën a am ci kaw suuf nit su demee ba amul kàddu nit bu demee ba lu mu wax ak yow mën na laa war nit bu demee ba lu muy jëf nu mu la mën a jariñoo moo tax mu la jëf mais loolu jafeñ-jafeñ am na te loolu lañ gis ni moom la ñuy politiquer te safaan boobu moo waroon a am bërki démb euh, man dugg naa ci waxtaan wi sax ndax euh, thème bi damay lu ma passionné waaye ñoo ngi euh, jaale sëñ Abdou Bali waajuram di ko ko masaw fan yi yëpp ñooy nekk ba 3 heures 4 heures du matin mosuñu woon a sax amul benn lu feeñ ci moom ci wet googu ci nekkoon na ci xat-xat ba bi biñ ciy waxtaan rek la may wax ni ma booba fekk na soxna si mi ngi ci euh, euh, euh, mi ngi ci tolluwaay yooyu waaye ñoo ko koy masawu di ko jaale it sëñ Muntaxa ak mbooleem bokki taalibe yëpp ak mbooleem alamal islam bi yëpp di ñaan it maamam Cheikhul Khadim teeru ko bisam bi nag moom rafet nañ ci njot lool ndax bisub safar moom man wax dëgg yàlla moom ku may ñaanal ñaanal ma ma dem ci rek ndax am na solo lool ku ko defee liñ doon wax léegi mooy politique gis nga gaañee dañu xarañ dañoo gis ni ni ma ko waxee léegi nii dafa doon lu am solo loo xam ni kenn defu fi lu ko gën kenn defu ko nag léegi nag ginnaaw lu mel noonu la te ñi gën ci suuf si ñoo war a taxawee suuf si yeneen yi ñoo ñëwoon di jubbanti nit ñi di defaraat suuf si maanaam defar nit ñi di nammat jikko yi di ko tàggat di ko suuxat ci nit ñi ñu dema dema dema dem ba ñu xam ni lii suñu ko seetaanee dana indi jafeñ-jafeñ ñoom duñu am li ñuy wax voix au chapitre ci lañ fexe ba jëfe ko jëfin wu ñaaw ba noppi it fexe ba théoriser ko ba ñu baax ñépp seexlu ko fi ne ñi seexlu politique ñépp ku xam dara danga ko comprendre ndax ni nu koy doxale moo ñaaw xam nga dafa am ku masa wax ni euh, genn kilifa la sax ci ñi daan def politique ci biir réew mi soxlawul nag may tudd aw turam waaye dafa mas bëgg doon député ci benn barab am ku mu waxtaanal borom mbooloo la kooku ne ko man dey mën naa laa jàppale ba nga gañe waaye nag dama bëgg nangam ak nangam ak nangam mu ne ko sàllaaw su ma gañee rek li nga bëgg lépp danaa ci taxaw danaa la defal ci bis bu njëkk bi nangam ak nangam li ci des danañ ko ànd toppatoo bi mu campagne ba kooka gañee mu daal di ñëw ci tàng-tàng bi ndokkeel ko félicité ko waaye nee na ginnaaw yi fi mi ngi soog a am naa delliwaat ba suba te suba si mu del si ñëw ni ko nuyoo di ko ah, lan waxante woon nag mu ni ko damaa xat bàyyil bu suba ndeke mu del siwaat ci suba gi nee na ma gis ko mu gis ma rek ni bërët jóg ma xam ni sawaay am na lum nar ma ni ko diw mu ne ma gees ma ne ko lañ waxante woon nag mu ne ma loolu waxi politique rek la woon ku doon wut la xam nga kon loolu mooy danger bi ci nekk kon ci di ko wax mais dañ koy jëfe te loolu warul woon a nekk ndax gis nga sëñ Bamba politique du dara lu dul xitma liggéeyal saw askan liggéeyal sam réew waaye nag lan moo ko sous-tendre ndax da nga bëgg liggéey ngir defar sa bopp wala da ngaa bëgg a liggéeyal askan wi pour féete leen fenn loolu yaakaar naa ni mat naa noo laaj ku mel ni Cheikhul Khadim gis nga lim ñu fi bàyyil la bàyyi lañu fi lu mel ni tey jii màggal gi liggéey ko jame boppam moom dong bàyyi ñu fi xasida yi nooru daare néeg bisi rek leneen ak leneen waaye gis nga laajul kenn benn dërëm jëmmi yàlla dong nga mu def kon su fekkoonte ni ñiy def jëmmi yàlla rek a tax muy def loolu du am benn jafañ-jafañ waaye malheureusement jëmm yàlla taxul ñu def leneen la ca toll te gën caa méttee ci mooy amuñu kàddu amuñu kàddu bërki démb rek am na ay kilifa yu ñu dajeel fii ñuy waxtaan ñu def délégation bu mag bi ñu nuyoo ba noppi loolu laa leen njëkk a wax man leen yéen de yéen a waroon a gën ci askan wi waaye yéen a fi yées ndax amu leen kàddu te da wax te lu ngeen wax man ngeen cee génn man ngeen a weex léegi soobu ci biir ab goudron génn weexaat tàll loolu politiciens rek a ko man loolu nag foog naa ni bokk na ci safaanub dëgg-dëgg la taxoon lislaam jóg bokk na ci safaanub la taxoon sëñ Tuubaa di sonn bokk na ci safaanub li tax ñu sañ ci dëkk bi. jërëjëf sëñ Babacar euh, comme ni ko indee rek ci déformation di terme. loolu moo tax lu bëree bari tey ragal li nga xam si moom mooy politique te loolu taxu koo jug ndax boo jëlee ci étymologiquement terme euh, comme ni nga ko leeree sànq ñaare yi moo mën a indi njuyoo ba ñu bëree bëri di ragal lii di politique waaye seen Cheikh euh, dañuy dugg ci thème bi nag dante defar ab introduction rek ngir leeral mbokk yi si ñoom ñoo ñu bàyyi xel xëy na thème ñu bëri bu ko déggee dana ci am jiixi jaax waaye li ko leer lee jàpp naa ni allah képp kuy seetaan nag da am aperçu ci li nga si moom la ñu waxtaan sëñ Babacar ñu bëgg jël nag loolu di politique ci ni ko Cheikhul Khadim sàncee ak ñu fi doxal xëy na sëñ dama lay bàyyi rek euh, nga dugg ak sëñ Babacar ci loolu na nga xam si moom mooy politique ak Touba dëkk bi sell bi. barakallahu fiik Bamba ñu ngi lay sant bu baax ci kàddu yu am solo yi waaye di sant sëñ Babacar ci leeral solo goo xam ne leeral na ko terme politique ak baat bi ñu yàq kon dafay mel ne buñ gestuwaat xool tuuti ci doxaliinu sëriñ bu mag bi bi mu dikkee ni mu ko waxee léegi ne yonent yi dañ doon politique loolu mooy li na ndax politique dëgg-dëgg baat bi mooy fexe ba andi ci li nga nekk te loola nekk loo xam day jariñ loola nag bu fekkee da nga koy def boo ñëwee arsale nit ki da nga koy ñàkk soo ñëwee imposé da nga koy ñàkk waaye baatu politique mooy nga ñëw naxtaan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu doon def bu lay gaaral lislaam gaaral boobu politique la daa doon mooy dafay ñëw xool la waxtaan ak yow leeral la lim andi lan la ak noo ko gisee su ko defee ngeen doog cee ànd yow ak moom sëriñ bi bu muy taxawal yoonu murit xam nga ne ak mag ñi nga ñoo ko taxawal ndoo am na ci ñoo xam ne ci tarixa la nekkoon waaye danoo bàyyi seen tarixa yi ñëw fekk sëriñ bi ci li mu nekkoon kon maanaam bu lépp yamoon du ñu ñëw wuute dafa am loolu tax ñëw waaye bu ñu ci politique ak Touba ndax Touba nim mu ko waxee léegi dëkk la bu seer la boo xam ne boo demee ci Matlabul ni sëriñ bi mi ngi fay seeral sellu dëkk boobu. waaye Touba dafa mel ne benn dëkk la ci boo xam ne dafa am autonome ci fànn yu bare bari ba liy dox ci yeneen dëkk yi du fi mën a dox maanaam ni politiciens yi doxee. nga xam ne dëkk bun dugg bokk na ci yëngal yi ñuy yi def ak meeting yi ñuy yooyu dafa selloolu teg war may dëkk bi ndax dëkk bi dafa am war may muy laaj waaye man li ma bëgg laaj sëñ Babacar mooy ndax sëriñ bi nga xam ne ay taalibe dañ koo topp yaakaar ko di seet ci moom yàlla ndax kooku buñ ko gisee moo gaa yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi di politique est-ce que sëriñ boobu war maam dëgg-dëgg dana des jin ko war a jox ndax politicien bi li muy jàpp comme ñoo bokk lu ñuy xëccoo sama ndaw la léegi waa léegi taalibe yi nekk ci ginnaawam bu gisee politicien bi mën a ŋàññi sëriñ bi est-ce que du nekk fitna joo xam ne sëriñ bi moo koy sabab sëriñ Babacar maanaam ndax danañ ko jox war ma hmm. taalibe xam naa ne diggante taalibe ak sëriñ de moom war ma rek a ci war ak la ca war moom sëñ bi wax na ko leer na xamees na ko waaye su fekkente ni sëriñ bi en tout cas man sama gis-gisu bopp ah, sama xalaatu bopp su doon man la su ma jógee bay di politique damay xal sama yoonu bopp sukkandiku ci gis-gis bi sëñ Touba amoon wala boog bi yonent bi jàngale wala ku mel ni Omar Ibn Abdel Aziz sukkandiku ci ñooñu woote ca loola. man lool lool bu doon man la man loolu laay def amaa jëmmi nag ñeneen ñu def leneen xëñ na ñàkkul ni am na lu tax ñu def ko xëñ na ñoo ko xam waaye man de su doon man lii laay def man wax dëgg yàlla ndax xam nga danger yi ci nekk dafa bari ndax système problème bi du problème mu nit du problème mu Senghor wala du Diouf wala Abdoulaye Wade wala Macky Sall problème bi dafa dépassé nit ñi problème mu système la d'ailleurs sëñ Touba boo jàngee ilhamu salaam ci ngay xam ne moom comprendre na yëf yi problème mu système la maanaam du jëm mi président bi fi nekk kese waaye dafa am lu nu nos tëral ko loo xam ni yow tuuti nga ci dindi ko kon soo jaxasoo ñoom yaa cay yàqule yaa cay yàqoo wala ñu tàbbal la ci loo xamut waaye mënoo leen a soppi ba na kon man foog naa ni li sëriñ Touba proposé woon mooy li am solo moom la war a def mooy ñu yee nit ñi ba ñu comprendre enjeu yi lan la moo tax ci ilhamu salaam xultu mun na bixen la wax mun na bix xultu munabbihan lakum yaa xawmi intabihoo min sakarati nawmi intabihoo min sakarati nawmi alors kon il faut ñu yee nit ñi ñu comprendre enjeu yi lan la ba ginnaaw euh, nit ñi ñooy tànn ñooy jiital ki ñuy jiital ñoo koy wax ni ko lii lañ bëgg ak lii ak lii ñun suñu alal lañuy dajale waaye ñun am paj lañ gën a soxla wala xam-xam lañ gën a soxla wala industrialisation la gën a soxla wala emploi loolu nit ñi ñoo koy décider jël la ni la liggéeyal ñu ci lii loola kon nit ñi ñoo war a fexe ba xam loolu ko enjeu yi ñu comprendre ko ba noppi di ko jëmmal te ginnaaw nit ñi nag mënuñoo jóg rek xam il faut que ñu yee leen ci moo tax sëñ bi ni xultu mun a bi xam il faut ñu yee nit ñi ba ñu comprendre enjeu yi lan gis nga boo seetloo ma ma ñambaas ko ci ndax laaj bi xëñ na war may nga doon laaj man nag sëriñ bu ci duggit du tere dinaa la warmaal wax dëgg yàlla ndax du loolu lañu seex terewul la ma war a def danaa ko def waaye système bii fi nekk bi bu ma ko waxee nag jubluwuma ci nguur gu fi nekk système laa wax système bi ca Senghor la tàmbale woon yi jiitu na ko sax ndax tubaab bi moo ko fi bàyyi te moom la sëñ Tuubaa di wax ni système bi c'est satanique wa baxdu fal majus wa nasara saaru li iblis al xawi u saara la wax donc système bu satanique la neena na mbirum saytaane la léegi nag mbirum seytaane moom moom man foog naa ni woote woon ci gis-gisub sëñ Touba ci yërmande ji mu ëmb ci xam-xam bi mu am ci ndimbal li mu yor ba mën cee génne askan wi ak xeet wi ci jafe-jafe yi nga xam ne nekk nañ ko non di wëlbatiku di jéggaani ay modèle yoo xam ni moo xam politique la économique la social la yoo xam ni ña ko fent bokk ñoom ñoom dara daanaka ñoo ngi gëj ci aadama seeni réalité ak suñu réalité bokkul contexte bañ doon fente loolu ak suñ contexte bi bokkul défi leen interpellé woon ak yi ñu interpellé fokkul bari na ci luñ théoriser la ñu xam ni c'est caduc actuellement mais ñu bëgguñu ko forcer par force mel ni ñun amuñu lu baax xamuñu ko te mënuñu ko jëmmal donc man gis naa daal ni wax dëgg yàlla war nañu mën a roote ci sëñ Touba loo xam ne mën naa génne askan wii ci jafe-jafe ñi nekk te lii may wax du caageen ni am murit rek moo koy wax bari na borom xalaat yi ko wax ay borom yi xam-xam nga am na ku ñuy wax euh, Eden Kodjo bi ñuy taxawal ñu africaine di soppal ñi OUA di ko yóbbu Union africaine commission de l'union africaine bi ñu ko taxawalee war ko koo dénk président Afrique yëpp teew Afrique moo gën a rëy senegal kon booba président Wade moo fi nekkoon ñoom Thabo Mbeki ak gaañ ci des mun leen ñun Afrique de su fekkoonte ni sukkandiku nañu ci xalaat ak njàngaleem ku mel ni Cheikhul Khadim sunu coono ak suufe gi ñu nekk yëpp génn nañ ci waa léegi moom mi xam loolu ndax borom xam-xam la day gëstu lan moo waral ñun loolu jëluñu ko jéem koo jëmmal. te kooku du jullit. jërëjëf nga fàttali ma ni benn moom du jullit te du sénégalais aussi ñu dolli ko ci ndax su doon jullit la ñu ne ah ñu jullit yi daal dañuy dañuy parparloo dañoo bëgg doole leen te day jàppale mbokkum jullitam mais du sénégalais aussi ba nga man ni day faral am mbokkam. alors kon ku mel noonu su fekkee dem na ba gis ni sëñ Touba moo mën a sauver Afrique lan moo tax ba ñun waa Touba mënuñoo génne kon njàngaleem sëñ Touba porté ko woo ci sénégalais yi ba ñuy dem di langaamu ak a fëgg ci euh, koŋ-koŋ euh, apparenté di di langaamu ci euh, porte yee xaw ma nuñ koy tuddee sax ci ci bunt yi oto yi ñu ñuy yóbbaale walla sëñ Touba dafa yor projet bu mën a génnee askan wi ci jafe-jafe yi ñu nekk dama naan yor na ko. yor na ko pour deux raisons pour trois raisons sax sañ Touba mboolem lu mu taxawal mësta laaj kenn ndimbal mësul am jàkkay njaareem bi mu fi jógee lañ ko def jumaa jàkkay njaareem bi mu fi jógee lañ ko def jumaa neel benn jumaay Touba ji bàyyi na fi million ay million yu bari yoo xam ne moom lañ ko tàmbalee moom sëñ Touba laaju ci ndimbal kenn sëriñ bi nekk na fi ñuy wàcce fa CFA euh, ñuy wàcce franc astafirullah 1914 sëñ Touba def na ci 500000 francs 500000 président bu France ca jamono yooyu 50000 la participé kon sëñ Touba moo doon dimbali France ah sëriñ bi bi ñu tasee dawlatul Ousmane ya niñ doon toppatoo njabootu yonent bi ca Médine ñoom mënatuñ ko 1923 déjà ci bi guerre bi jeexee ci lañ tàmbali am problème biñ sesine sëñ Touba mais sëñ Touba moo yoroon seen dund kon sëñ moo doon dimbali Europe moo doon dimbali Asie kon yoon wa mu jaaroon bay dimbali bitim réew waa Asie di dimbali waa Europe yoon woowu suñu ko toppoon fent modèle woowu matérialiser ko jëmmal ko théoriser ko porte projet boobu waxuma dëkk bi waxuma la Sénégal mais génne nañ Afrique ci jafe-jafeñam yi comme ni ko Edem Kodjo waxe woon kon man loolu laa gis ne kon yaakaar naa ne waruñoo langaamu ñoo dem di fekki kenn dañoo war a porter projet bi l'islam yëkkati ko ndax l'islam lu ci nekk joxe na ci ay xalaatam su ko defee woo ci waa Sénégal te fii ñu baax rek lañ bëgg ñu baax rek a fi nekk. que loolu loolu sëñ Babacar li wax am na solo mais est-ce que Afrique ci boppam buñ defee loolu doo gis dañuy tardé ci benn côté ndax. li nga wax ne système boobu ba léegi moo fi dox mooy lu jamono bi fi ba colonial ñëwee ba léegi benn système mooy dox sensé wut mooy toujours dañuy jëgaan yi duñ produire toujours dañuy wuti waaye dun duñ duñ duñ te sëñ Touba ci ay procès dëkk bi ñu nekk di Touba am nan benn problème bu sérieux boo xam ne réglé ko dafa jafe muy problème assainissement te naa problème boobu solution bi nga ci mën la foo sëñ bi nga solution bi nga xam ne mooy war a réglé problème assainissement mi ngi ci Matlaboul Fawzeyni ci wàllu dëkk bi boo xoolee ni mu tànge nga xam ne daanaka bokk na ci dëkk yi gën a tàng Sénégal solution bi tax mu sedd sëñ Saliou joxe war na ko ci garab yi ñu war a jëmbat ci tel côté su ko defee mu dévier ngelaw li mu sedd waaye dafay mel ne kon ñun ñoo pareegul ngir liggéey même buñ gisee solution yi sunu fit nanguwut ñu engagé ko ndax jumaa ji nga joxe exemple sumb bu rëy la sëñ Tuubaa mag ñi mu yaroon kenn ku ci ne danga nga daa développé dara gerte bi muy doog a dugg Sénégal ci njabootu Serigne Touba la gerte développé ba dëkk yi bare bari man ci jot waaye loolu njàmbaar gi koy motiver nan lan mën a def ba am ko sëñ Babacar. lan ci njàmbaar gi motiver maanaam ñu fexee ñun di produire suñu dëkk yi bañ a basé woote ci européen yi jël njàngaleem Serigne Touba la jël ko muy système teggi système bi bi ne woon di ko doxal nan lan mën a def pour sumb maanaam gis nga système bi fi nekk mënee si ko soppal ñi te duggeesul ci làmbu politique mënta nekk ndax xam nga boo duggul ci làmbu politique yi xam nga looy man li ngay men mooy dama am màggal bind préfet ab bataaxal mbaa gouverneur mbaa ministre de l'intérieur bind président ni ko dimbali ma loolu ngay man te li nga naan ko dimbali ma sa alal la faw nit ñi dugg ci làngu politique yi pour mën ko soppi maanaam nit ñu baax ñi laa wax nga xam ni kenn du leen jënd am nañu ngëm-ngëm te gëm nañu lépp lu ñu wax mbaa ñu jëf ko danañ ko joxlante waat ak seen boroom leeral ko ñooñu ñoo war a dugg ci politique bi su ko defee buñ ci duggee ba mu yaatu ñooñu dañ soppar yëf yi xoolal tey jafeñ-jafeñ fi mu ne li ngay wax nii dana jafe pour ñu soppal ñu ko dëgg la dana jafe ndax jafeñ-jafeñ bi ñun taalibe yi bu ñu seetee suñu bopp rek ci lañ koy gisee da ngay gis Serigne tubaa taxaw di ñaan ak ñaan ba ko ñaanee la ko yàlla nangu ci baatin nag laa wax waaye saa si moom lenn lu ci nekk am na ci luñ ci gis am na loo xam ne si mi ngi ci kanam di ñëw tey bu fekkente ni Serigne bi dafa ñaan ni par exemple boo demee ci mel ni ci Matlabul Chifaay wala Fawzeyni gi ngay wax ni bari aana lu mu ñaan ñaan ko ci dëkk bi waaye ñaan yooyu mu ñaan ndax dañoo war a jël rek Fawzeyni ku ne jàng ko ñeent fukki yoon rek di ko baamu rek wala nga jël chifa yi rek daan ni bis bu ne bu ma xëyee naa ko jàng fukki yoon rek waaw jàng mi baax na waaye dañoo war a fexe jëmmal loolu jëmmal ko seet nañ ko war a defee ñu jëmmal ko puisque tudd nga wàllu environnement nañ jël exemple boobu tey Touba gii tàngooru fi ne mais jaaduwut sëñ bi ndox mi nekk fii tuubaa ñu koy naan mais ndox mi jaaduwut du ndox mu ñu war a naan donc loolu liñ ci war a def mooy nii dañoo war a jël suñuy précaution la ca war ci xam-xam ñu def sëñ Lamine Mbacke mu sëñ Moustapha Bassirou mi ngi fi xam-xamam ci loolu la jëm waxtaanoon nañ ci loolu am na ci projet yoo xam ne def na koo pare il suffisait tuuti ñu accompagner ko képp Touba dana bokk ci dëkk yi gën a féex ci àdduna bi xam-xam bi mi ngi fi mais duñ jëm ci loolu dañuy toog di jàng xasida gi di baamu bayiti rek di ko baamu di ko baamu loolu nag du ko boo xoolee si Abdou Lahad di sëñ Tuubaa ne maskal yi sànni minal fujaari jaari muy wa maskal yi sànni minal fujaari ndax ñooñu ñooy li ñu sëñ Tuubaa doon ñaan ndax ñoo war a taxaw pour assurer kaaraange bi kàccoor yi man a dem wam nun alaa alib mayan jaari mu bënn ay forage kon damay dëggal li nga wax ne kon xasida yi li ci nekk sëñ bi ñaan na ko moom nangu waaye ñoo ko war a jëf saahir ngir jëmbal ko mais loolu la waaw donc ma ma waxit ni waxuma bu kenn jàng dama ne nañ ko jàng waaye bun yaakaar ni jàng mi rek ci lañ war a yem te tegtal bi nga ci jox doy na ci sëkk am na beneen tegtal bu ma ciy dollee sax ni Cheikh Abdoul Ahad dafa doy dafa doy royuwaay référence modèle la bi mu dikk tuubaa gii ku xamoon tuubaa xam nga ni Touba booba moo dëkk yëpp a yem ci saahir dañ fi daan soccu dañ fi daan naanu ndox dees fi daa tëgg dees fi daa fecc lépp nag ci pénc mi lañ ko daan def nit da daa socc ba ñëw ci wetu jumaa ji doo a fay la may la may fay dugg ci jumaa ji julli amoon na ci dëkk bi waaye bi Cheikh Abdoul Ahad dikkee ñëwul nañu wàcce junniy kaamil te jàng fawse néeg fawse nañ ko daal di baamu ndax sëñ bi ñaan na fi lim fi ñaan wala nañ jàng nooru daal di waxul loolu dafa ni Serigne Touba li mu bëggoon ci dëkk bii kumu defe ni man nga fee def lu wuteeg loolu bu soobee danga nan ko jëflante man ak yow aywa bu yoboo muy tey la cey juddoo dana judd du ñoqi donc engagement boobu buy traduire nit ki jóge ci xam-xam ak i xalaat jëm ci jëf jëmal dara ñun foofu lañ ame jafe-jafe beneen bi ci des aussi mooy ni tey ñun suñu seetee études yi tout cas yi mujjee génn recensement bi gis nañ ni 33 pour cent sénégalais ay murit lañu mais ñun murit yi fi mu ne mais amuñu dara luñ mën a jëmmal ci réew et pourtant force lañu fii ma koy wax nii ndax message la boo xam ni dañ koo war a jéem a jàngat mais wax dëgg yàlla man suñ mbokki tijaan yi naw naa leen lool maa ngi leen di ndokkeel di leen félicité lu gàtt-gàtt waa kër sëñ Babacar si ñoom góor góorgóorlu nañu ba jaar ci doomam ju ñuy wax sëñ Cheikh Tidiane si almaktuum taxawal seen i daayira tudde ko Moustarchidine wala Moustarchidaty créé parti politique ca biir tudde ko PUR fexe nañ ba jël ñetti nit ñoo xam ni sëñ Babacar si dong la ñu noyyee ñoo ngi assemblée nationale te ñoo ngi laaj réew mi te nañ xool bañ teg loxo yi seen réew mi danañ xam ne ñoom am na lu ñu gëm am na fu ñu jëm lan moo tax ñun mënuñu ko doguma la Serigne Cheikh Tidiane si rek ci lañ bëgg a nekk Serigne Cheikh Tidiane si dafa waxoon lu yéeme ah. mu ne yoonu murit mi ngi dox waaye amul organisation mu ne yoonu Tidiane doxul waaye am na organisation mooy dëggal li nga wax ñun dañoo organisé wul gis nga ñun hmm. organisation la ñu ñàkk moom la ñu manqué te xam-xam bi mi ngi fi mbooloo mi mi ngi fi doole jaa ngi fi alal jaa ngi fi te li ñëpp manqué ñun am nañ ko muy benn baat kilifteef kenn dongoy wax ñëpp jóg jëf bu kenn xisee addu amul kenn ku ci waxaat lu mu xalaat mais ñun bu ñu réalisé wul dara kon ci ñun la te gis nga kii sëñ Muntaxa mi fi nekk nañ ñëpp di ñaan mu yàgg fi lool te wér lool te lépp lu mu naal te yéene ko yàlla na borom bi yeggale ko ci kanamam mu fekki ko te defal ko ci lu kawe kawe njortam waaye gis nga ku am yéene la lool ku ku ku ami xalaat la lool te sori ab gis-gis léegi nag moom dañoo rawee ay siècle sëñ sëñ Muntaxa xam nga lool jafe-jafe la ndax boo àndeeg sa njaboot te rawee leen ay siècle ñun yaakaar nañ ni fi mu ne yeewu nañ te ñoo gën a nelaw ñëpp ñun fi mu ne ñoo ngi nekk ci folklore ci folklore ak ci wax ci maanaam daanaka ay wax yu aérien yoo xam ne kenn mënu caa tënk dara ñuy feta naan est fekk na Serigne Touba li mu taxawal foo mën a teg Serigne Touba fa mu tegoon yonent bi moo ko sut mais bi mu dikkee dafa assumer responsabilité mu xam ni jëf mooy tax yëf yi dem alors ñun ci loolu la ñu war a versé wu jéem a jëf kon yaakaar naa ni ñun li war a def mooy jéem a organiser waat dellu ci teen bi nga xam ni moom la ñu war a roote muy teelu yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy dégg-dégg bi ci Serigne Touba am ñu jéem koo jëmmal te fexe soppar ni lii fi nekk nii damay wax toujours ni bu ma seetloo histoire u de la famille bi fi jaaroon toujours damay am lu mën a xari man de la famille li lay wax ni le politique ci niñ koy defee moom waree su ko def Touba gi waaye politique képp lañ war a defee Touba du dégg nga li ma wax politique nii ñu koy defee tout Sénégal gi kenn waru koo defee ci dëkk bi parce que dëkk bii dëgg a tax ñu sanj ko lépp lees fii def jëmmi yàlla dong tax ñu koy def te ngërëmal yàlla rek lañ ci wut wut sëñ bi mel na ni mas nañ koo laaj ni ko kan mooy murid saadix man huwa al muridu saadix mu ni allazi yuridu wajha llaah fi kulli shay'in kon lépp lu ñuy jëf ñun jëm yàlla képp la wut kon ñu nekkuñu ci ay tappale ak i caaxaan ak a seet lu ñuy wax loo xam ni dañ koy am kuñ ci seet jëm yàlla ji rek lañu gis ndax kii ñu topp te yaakaar ko te gisuñu ku dul moom nag suñu bët kenn feesu ku dul sëñ tubaam yi moom loolu dong ko taxoon a jóg kon su fekkente ne lu mel noonu am na ñun war nañoo fexe ba jéem a topp ci tànkam yooyu te jàppale sëñ Muntaxa Mbàkke mii ci gis-gisam ak xalaatam yi nga xam ne yu xóot yi la. jërëjëf sëñ Babacar wax dëgg yàlla macha allah waaye sànq say biir wax da nga am wax lu am solo muy problème mu ndox ci ci Touba ñu gis nii bis bii di màggal Touba ba tey bu ñu ci biir thème bi ñi ngi gis ay études yoo xam si ay économistes danañ ko def muy injecté ci économie Sénégal li ci mel ni plus de 300 milliards. xaalis boobu nga xam si dëkk bii di Touba mu ngi koy injecté ci politique ci ci dëkk euh, gouvernement Sénégal te gis ñu benn retour benn échange loolu na lañ ko mën a jàngatee yow en tant que borom xam-xam. xam nga sëñ Abdou Lahad mi ma doon wax léegi dafa waxoon président yi mu dajaloon du ma leen gis mukk sama soxla su bopp waaye warlu naa fii wak réew mi lu fi tab bi ñëpp bokk ko wàllu Touba dana génn danaa leen warlu ni réew mi dana jëm ci kanam beneen bi ci desit lépp loo xam ne wàllu Touba da ko war a génn loolu dañ ko war a génne gis nga lobbying bu positif mooy doxal àdduna ndax état dafee nekk doon day ji seex kon communauté bu ci nekk yaa war a taxaw ci xam li sa intérêt nga taxaw ci loolu nga sàmm ko gis nga rapport yi ab sëriñ di am ak politiciens yi rapport yi warut a demee nii recevoir la yëkkati malit jox la wala may la passeport diplomatique wala yu leen demee du loolu lañu war a seq passeport diplomatique yooyu liñ ci jox ONG yi joxuñu ko sëriñ si. ONG yi défendre góor jigéen yeeg ñeneen liñ leen di jox ci passeport diplomatique joxuñu ko sëriñ si laa la wax kon loolu du bu ñu leen defal dañ leen ko war a defal parce que ci réew mi lañ dëkk mbooloo mu bari topp seen ginnaaw nekk fu ne ci àdduna ñu war di dem di liggéeyi kon ci service d'utilité publique lañ nekk dañ leen ko war a jox war ñu leen cee neexal loolu il faut que dafa war a leer loolu loolu nag su xisee jàll rapport bi sëriñ bi war a am ak politique bi mooy askan wi seen njariñ fi mu jëm loola ñu taxaw ci dama lay wax ni la ñun ñoo am ay ay ay ay dese dese ak euh, ñàkk dégg waaye maam Cheikh Ibra Fall mi nga xam ni foo waxee yoon wi ñu ni am murit niin danañ ko tudd ni moo jàngale mais maam Cheikh Ibra Fall politique na biñ jàppee sëñ Touba mu defi pexe ni sama sang bi sang bi laa bëgg mu dellu si amu ci pexe ba gis benn tubaab bu ñuy wax Carpo daa waxtaan moom Carpo ni ko man mënuma ci dara waaye bu fekkente ne day falu naa député danaa fexe ba sëñ Touba ñibbisi maam Cheikh Fall yëkkati 500000 francs jox ni ko maa ko participé ci campagne ba noppi takk la xasaayam jóg campagneel ko ba Carpo gagné Carpo it lam ko waxoon def ko ñu fexe dox nañ ba indiwaat sëñ Touba kon politique problème intérêt la. ñun yoon wi dañoo am intérêt yoo xam ni dañ koo am sëñ Tuubaa bàyyi ko fi ñu bëggoon ko te loolu mooy intérêt l'islam kese kon loolu loolu ci lañ war di taxaw ngir loolu mën di jëm toujours may fàttali ni Cheikh Abdoulaye fii la toog 87 daan ni ku woteelul Abdou Diouf woon nga Serigne Touba mais bi mu koy wax dafa wax lu leer te ba muy soog a toog ni ku defal murit yi sëñ Touba la war a fay ku def ci sëñ Touba murit la war a fay te Abdou Diouf bi muy dikk la ko jiitu ki fi njëkk ci réew mi ab infirmier d'état lañ fi indi woon la ko jiitu ku mas a gaañu dañuy dëbb am rat rek tay ca góom ba la ko jiitu nee na man 1900 wee laa dikkoon Touba waaye buñ masaan a gis lu takk lu xuuy guddi képp da nga yuuxu daw ni da jommi nee na ñàkk nañ fi ndox ci dëkk bii ba mu yegg ci boo gisee kuy sebeti nee na dañ koy wër dongo yi naan ko may ñu ci sebeti mi ñu naan ndax ñàkkum ndox ki fi jëkk ci réew bi mu dikkee nee na moom juróomi forage la fi def ci mboolem Touba li ci aju nag laa wax de waxuma dëkki Touba rek te lu ci nekk moo ñëw inauguré ko indi fi infirmier d'état waaye nee na kii fi dikk may wax ak yéen moom def na fi fanweeri forage ak benn ku mu neex wàññi defal na fi téeméeri buumi làmp ak ñaar fukk ci ay kilomètres yoo xam ne boo déparé Daaru Salaam ba Touba Belal def na ko ci dëkk bii ni defal na ko sëñ Touba te soxlawul dara ci sëñ Touba nag aw kat dong la soxla ci moom loolu intérêt mu nit la donc comme doon tàllal nee na l'hôpital bii di ndaamaatu moo ko fi def te jaaru fi sax inauguré ko nee na soxlawul ci sëñ Touba dara lul aw kat dong te ñun murit yëpp danoo jaayanteek sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom suñ lépp moo waral mu ne kon ku ko moyele saw kat war nga ndax dangaa jox sa sëñ Tuubaa sa lépp kii lebal sëñ Tuubaa ni soxlawuma ci moom dara te sëñ Tuubaa wax ni malaka ni dunya waxura samadu yàlla moom la ne ko tey ak ëllëg kii di sàkku ci moom lii nga xañ ko ko yow koñ war nga kon da nga comprendre fa mu doon waxee waaye loolu c'est politique ndax ñun dañoo am ay intérêt am nañ lu ñu bëgg ñun laa communauté murit en tant que communauté bu nekk ci biir lislaam tey l'islam kese sax te lay intérêt yi Tiwaawan di intérêt yi euh, ñaseen yi di intérêt yi ñeneen loolu intérêt yi murit la ndax l'islam kese kese kese te sunu sëriñ loolu ko taxoon a jóg kon loolu laa foog ni ci lañu war a jéem a jublu taxaw ci wax intérêt yi nit ñi séq bu boobaa ñëpp danañ ci gis seen bopp te yaakaar naa liñ bëgg dana gaaw a sopp sëñ Babacar dogguma la damay dëggal li mu wax ndax Senghor ak Lamine Gueye ak Mamadou ja bi ñu wër bi ñu wër réew mi kenn ku ci ne ñëw nga Serigne Fallilou boo dikkee day génne enveloppe def ci fukki junni jox la bi mu joxee lamin Gueye dafa jël yóbbu mu jox Mamadou ja mu jël yóbbu bi mu joxee Senghor Senghor delloo ko daan ko danaa fexe rey su ma jotee réew mi danaa taxaw sa jumaa ji ba mu àgg dëkk bi di tubaay yi danaa fexe ba titre foncier bi génn sëñ Fall daan na kon Senghor sangu ca kaw daa ne politique jëmul alaxira adduna gi lay am te ku ma jàppal mbiri sëñ Tuubaa ma jàpp la kon dëggal naa li nga xam ne moom la sëñ Abdoulaat waaw ah, sëñ Babacar waaw wax dëgg yàlla mooy xanaa dañuy dikkaat ci li nga xam si nii falan falan jotoon a taxaw ba tey muy thème bi mbokk yi nga xam si yéen ñuy bàyyi xel eh, Touba Vision ci biir réew mi ak bitim réew mi ñeeg sëñ kar Mboup moo nga xam ne yàlla borom xam-xam la eh, am li nga xam si moom am na yéenay partagé ko si thème bi muy Touba et Euh, sëñ Babacar xanaa dañuy di ak yow ci li nga xam si moo li ma la waxoon sànq xëy na da nga koo boros daal di dem muy 300 milliards yi xam si étude bi sëñ mu barak loo defoon ci suma juumul ci euh, étude boobu euh, somme boobu Touba di injecté ci ci ci wàllum politique ndax ñun échange bi ci war a am ndax Touba dafa dañ dafa war am contre contre maam ñu ko ci waxee intérêt ci loolu noonu nga xam participer na ko si économie Sénégal. sax dama ni lobbying lañu ñu war a def lobbying parce que dañoo am intérêt. dañoo soxla ndox mu mu neex ndox mu potable. par exemple dañoo soxla assainissement mais loolu lobbying la ñuy def am ko gis nga tey jii boo demee par exemple fu mel ni États-Unis mais le lobby juif bari wuñ ca réew ma et pourtant lépp luñ fa bëgg dañ koy am loolu moo la waral ni lobbying lañ war a def lobbying bu positif ci Touba lan mooy ay soxlaam tey Touba lañ may ay soxlaam suba Touba lan mooy ay soxlaam ginnaaw ëllëg loolu la murit yi aussi lan mooy seen soxla cest à loolu lu ñu war a am la répertorier ko maanaam dans le court moyen dans le court moyen et long lan la Touba soxla actuellement nii. lan la it l'islam bi yëpp sax soxla dama la projet boobu jàpp naa ni ñun ñoo ko war a porter Touba moo ko war a porter warut yam rek ci enceinte Touba bi ndax bu ñu fàtte ni sëñ laa dafa waxoon ni Touba mooy dëkk beeg li ci aju. waa Touba nag mooy ñi yaakaar sëñ Touba fu ñu mën a ne kon géographiquement c'est pas alors kon loolu moo lay xamal ni la suñu bëggee par exemple assainissement wala ndox mu neex wala ndox mu baax il faudrait que loolu ñu taxaw ci ñi ko yor suñu alal lañ yor alal ji nga may ma ma expliquer alal réew mi ni muy ni muy demee parce que dafa mel ni dafa am ku yor xaalisam baax lool ñëw di dimbali demewul noonu alal réew mi mi ngi jóge ci soxna si jaay gerte caaf fii caaf juróom fi mu ne danañ koppati dara ci moom boo jëndee dërëmub tàngal fi mu ne am na lu ñu ciy koppati ñooñu la ñuy dalee seen alal loolu moom mooy budget ginnaaw bi député yi dajee ba ni réew mi kat soxla nañ nangam soxla nañ nangam soxla nañ nangam ndax mooy yi réew mi soxla loola kon nañ jël kii jaay caaf kii jaay mburu nappkat bi sàmmkat bi kii xëy ci euh, euh, fonction publique bi kenn ku ci ne ñu am luñ comp ci ligam dajale ko. su fekkee mat na ko baax na su ko matul ñu ne réew mi lan la am ci ay ressources am nañ géej nañu daal di ak Russes yi signé ak Espagnols yi jaay leen ñu napp ñu jox ñu xaalis su ko matewul ñu ni tey bëggee am na phosphate am na feneen nañ ci jël jaay ngir mottale xaalis yi kon alali askan wi lañu yor yoruñu seen alal ba ciy baax ak ban leen ciy gërëm gis nga nañu bàyyi nañ bàyyi ñaar yëf borom nguur fii nguur nekkatu fi gis nga dafa bari loo xam dañ ko war a jàngataat nguur nekkul ci Sénégal actuellement nguur nekku fi ay dammeel ak i teeñ ñoo doon falu ay buur waaye actuellement ci république lañ nekk république amul buur république la fa nekk mooy ay nawle askan wi tànn kenn ca ñoom ni ko liggéeyal ñu sunu mbindaan nga mbindaan moo fi nekk mbindaan ndax xam nga li ma wax mbindaan moo fi nekk mbindaan président ma Sall mooy mbindaanum réew mi ñoo koy fay ndox mi nii naan sax ñoo koy fay suñ alal ay doomam bu ñuy jàng sax ñun ñoo koy fay te pourtant mën naa am ñun suñuy doom jànguñ wala jànguñu nan wala jànge kon nañu xam ni buur nekkatu fi nguur nekku fi muy benn ñaareel bii tamit kenn ku ci nekk ci nit ñi aussi bi nga fi nekkee nga soog a man li nga man waaye la ko jiitu mënoo ko woon ndax alali askan wi nga yor kon ñi nga xam ne mën nañ ci dara di ay kilifa ñoo war a fexe ba doon ay régulateur ba fi ñu war a def alali réew mi ñu ko fay def te loolu bu ko defee fi ko war a def Touba dana ci jot lim ci war a jot Tiwaawan dana ko ci jot te du doon loo xam ne day mel ni dañu chantage la wala dañ leen a bëgg a jënd wala dañ leen a bëgg a ger loolu mooy li war a am moo tax man la problème mu lobbying kese la moo tax man la tontu naa question bi sànq problème lobbying kese la il faudrait que ñu xam ne ñun dañoo am ay intérêt yu spécifique en tant que communauté en tant que euh, dëkk boo xam ni géographiquement am na fu mu nekk mais am nañ lu ñu soxla ñi fi dëkk am nañ ay soxla loolu nag il faut que ñu porté ko fa nga xam ni ñëpp a commencé bokk ñu ni kat soxla nañ lii soxla nañ lii soxla nañ lii xam nga ñoo ngi dem ci session budgétaire mais loolu dong la jotal nañ fi lii ci soxla jotal nañ fi soxla kon dañoo war a jot li soxla yi lii rek la jërëjëf sëñ Babacar rek macha allah leer na comme ni nga ko message boobu nga jàllale waaye fi ñu bëgg a jóge yow ni li nga fi wax lépp nag ci wàllum politique xëy ak ni dikkee ci euh, bi dikkaat ci ñu ko déformé ñëw ci diggante Touba ak politique ak réalisation xam si si Amadou si Abdoulaye Abdoulaye yooyu yëpp ngir dimbali ne nguur gi amaana du Touba dong moom la ñu war a dañ waaye dëpp bi ci moom daa war a participer waaye li ñu bëgg a wax mooy li ngay man li ngay défendre pour Touba yéen tamit daa mel da ngeen ci am responsabilité bu mag ndax xëy na ay borom xam-xam ngeen euh, ndax yéen waajal lu ci mel ni ay ay ay ay liggéey yoo xam si da ngeen di collaborer jéem a jàkkaarloo géopolitique bi ngir li nga xam si moom ngeen bëgg ci lislaam ak doxalin ci dëkk yu mel nii ñu man koo jàllale. ah maanaam loolu mënatu la ñàkk sax ndax xam nga réew mi buñ ñu commencé bokk ñu ni nangu nañu taalibeeb Karl Marx moom xam na ni ginnaaw sëriñam boroom xam-xam la kon taalibeeb Karl Marx borom xam-xam la ginnaaw sëriñam ku amee ay xalaat la taalibeem am na dayoo. war naa mën a jiite réew mi kon buñ ko nangoo taali yëpp Engels Karl Marx ñoom Proudhon Saint-Simon ba ci Voltaire ba ci ña ca des lan moo tax nanguluñ ko Sëñ Tuuba léegi nag moom ñaanatuñu ñu nangul ñu ko ñun dañ ko imposer par force ndax réew mi ci lañ bokk ni ci keneen bokke ni ci keneen bokke bu fekkee xalaati keneen la yor ñun xalaati Sëñ Tuuba lañ yor te jàpp nañ ni bu boobaa ka nekk ca jàngu ba ak ki nga xam ne gëmul yàlla sax moo ciy gën a gis boppam xam jami xal wala maanaam yërmande yàlla kese dong la yor te yéene na ko mboole mbindeef yëpp loolu nag tax na ñun ñoo ngi ciy dox ay jéego ñoo ngi waxtaan dafa toll ci ab togg waaye ñoo ngi waxtaan ba nga xam ni réew mii dañu cee am sañ-sañ am nañ ci kaddu te kaddu googi des koo fesal li nga xam ne moo nekkoon loolu moom wonni na nekk fii naan nan ñu may ak nan ñu jàppale ñun ñaanuñu kenn ku ñu may nee nañu kenn jàppale suñu alal la constitution bi lan la wax la souveraineté appartient au peuple mais peuple bi ñun 33 pour cent lañ ci te damay wax sax ni ñun duñ 33 pour cent ci peuple bi ñun plus de 95 pour ndax képp kuy ab jullit wax ashhadu an laa ilaaha illallaah sëñ Tuubaa mbokkoo la kon ginnaaw ñun noonu lañ fi tëddee ñoo ngi waxtaan ci loolu ba xalaat yi ñu am ni ñu nongalee Karl Marx ñu nongale ko Serigne Touba nongul ko keneen koo xam ne si nekk na ci biir réew mi loolu ñoo ngi ci dox ay jéego. sëñ Babacar boo gisee sax ñu laaj la loolu ndax jamono ci ginnaaw ci atum 2016 bu ma njiitum réew mi am na lu fi defoon muy référendum référendum boobu ñaanal leen ma la waaye daay mel ni kilifa diine yi seen ñaan lañ soxla waaye soxla wuñ seen xalaat kon Moustapha loolu lañ ci mën a sëñ sëñ Babacar loolu la nga ci mën a jàngat jàngat boobu xam loolu sax moom loolu metti na lu mettee ngi nii nga nettali man dama ci am ñaari jàngat wax naa ko ca jamono yooyu aussi nee naa réew mi ginnaaw sëriñ si nee nañ leen ay citoyen ordinaire lañ man wax dëgg bëggoon naa ñu leeral ma ñan ñooy citoyen extraordinaire yi wala boog citoyen normal yi daal mooy ñan mbaa du góor jigéen ñi man daal xaw ma ñan la waaye bëggoon naa ñu leeral ma ko dama koo xamul waaye daal suñu kilifa yi moom moom ñooy citoyen ordinaire yi man Samba Suum Gaye bi nag man xaw ma lu ma doon man kon loolu moom benn jàngat la ci beneen bi ci des ca jamono yooyu boo gisee dañoo li lay wax ne la ñun nawloo wuñ ñu li may bëgg a wax nii nag lu metti la waaye lu am la nawloowuñ ñu ndax suñu nawla woon doo jël fukki laaj ak juróom fukki laaj ak juróom benn yaar yett yent ba fukk ak juróom daan ni laaj naa nangam laaj naa nangam laaj naa nangam laaj naa nangam sëñ Bamba laaj yëpp dama la koy laajandoo léegi benn choix dong mooy tontu neel waaw mbaa déet rek mais amoo di teqati benn tontu bu ci nekk nga indi ci tontu déedéet da ngay globaliser woon laaj loolu koo nawloon teel doo ko def ak moom koo jox gëdd doo ko def ak te naw te pourtant suñu baat lañ yor mais li ma ci gën a naqari mooy bi mu defee loolu ba noppi wala ña ko def dañoo dem laaj ñañu laaj ni ñooñuy kilifa lañu bi ñu amee seen avi ba jàpp seen bis ni bis sàngam la ñuy def élection yi référendum bi ba bis ba ñuy tàmbali campagne bi ci lañuy ñuy soog a jóg dem ci sëriñ si loolu lan la firi loolu li mu firi yi lu gàtt la mooy sëriñ bi ñëw naa ci yow ndax xam naa ni am nga mbooloo waaye laajuma la sa xalaat ci li may def de ndax li may dogal dogal naa ko ba pare li may dogal dogal naa ko ba pare ndax waaye laajuma la sa xalaat léegi kon dem ba dikk lan la wat dem ba lan la du woon pour laaj ko xalaatam ndax ñi laaj xalaatam laaj na leen ko ba pare ba jël dogal soog a ñëw nag di leen informé kese loolu moo lay wax ne la réew mi amoo ci sañ-sañ amoo ci kat ginnaaw suñu sëriñ Seeku amul na ñun waxaale wuñu loolu Cheikh Bamba moo war a jeex ci réew mii ñun duñ ay citoyen de seconde zone loolu nekkul ni fi labbe bi amee taxawaay franc bi am ko fi ñu ubbil fi buntu góor jigéen yi ñu am ko fi mais taalibe sëñ Tuubaa war nañ fi am aussi pap taalibe yonent bi war nañ ko fi am mais waruñoo yem ci ñu ñuy bu màggal ñëwee ñu andil ñu ay ceeb mel ni maanaam ku yor sa poulailler ak say ginaar c'est-à-dire rapport bi warut a demee noonu wutul demee noonu alors su fekkente ni nag lii ma la wax seetlu nga ko bu baax kilifa nga bàyyi ba jël sa dogal ñëw naan ko léegi kat man li ma dogal lii rek lii ak lii rek mooy waxuma sa xalaat léegi nag ñaanal ma gars yi liñ ciy wax lépp amu ci euh, ñaanal ma waaye nag bul wax sa xalaat ba tey de ndax sa xalaat ñun soxlawul léegi il faudrait que cette tendance la ñu inversé ko te ñoom ñi ñu jàkkaarloo war nañoo xam ni bu ñu tëddee tey jii bu ñu nelaw parce que cette tendance dana inversé wu ci nii wala ci nelee wala dana inversé wu parce que ñun mënu ñoo bokk ci réew mi ba pare ñu bëgg ñoo jàpp comme ay citoyen wala xawma ay citoyen man xaw ma sax nan laa koy tudde loolu jaaduwul ñun ci réew mi lañ bokk ñun réew mi rek lañ bëgg ñun réew mi rek lañ xam ñun réew mi bañ na ko ba la jeunesse mouride man damay interpeller l'état du senegal la jeunesse mouride ñooy jeunesse bi gën a discipliné ci adduna laa wax tey jeunes yi Sénégal danañ jël subvention foo dem boo demee commune Mbacké ñu génne subvention jox ASC e yi boo demee ñu def ko Mbacké Dakar danañ ko def Kaolack danañ ko def ci commune yëpp pourtant daayira yi kenn du leen subventionné te pourtant daayira yi ñoom ñooy ñaqal seen bopp ñëw def seen am ngont wala seenu cant xat du fa damm police soxlawu faa ñëw ndax seenu yar mata na ko seen i teggin mata na ko te waxtu wu ne ñoo ngi daan seen doole di jëriñ askan wi. sëñ Babacar dagguma la jamono yi waa kuréel Cheikh Khalim TV ñoom nekk sa Brésil daa am communiqué bi ñu doon def ci wàccaayu màggal gi nga xam si fu ne ci àdduna bi ci réew mi ak bitim réew ñu ngi ko fay màggal waaye élection yi ba mu jubsee bañ demee def seen demande di leen a xamal ni loolu kat wax dëgg yàlla da leen koy nangu ndax yéen ñii seen ñu koy waxee day nekk donte mbooloo mbari lay doon waaye jàmm kase am murid leen ko sëñ Babacar mais bien sûr kon murid yi ñoom yàquñu murid yi dañuy defar murid yi ay liggéeykat lañu murid yi boroomi kilifa lañu tëwuñu kenn loo ci mën a joteeg waaye ñun la kuy kilifaam yëf ya fa la mais ku am ku mel noonu mais kooku dañ ko war a promouvoir jàppale ko loolu dëgër mooy gën a dëgëral la cohésion nationale mais xale yii la ñuy jël jox leen subvention bu ñu demee ci stade ba ñu rayante fa kii daanu na fa kii dee na fa te pourtant sa alal ak sama alal la jël def ko ci loolu moo war a dakk ci réew mii maanaam traitement boobu nga xam ni si dafa inégal moo war a dakk ci réew mi te loolu dana dakk dana dakk parce que ci réew Euh, réew mi lañ dëkk te ñoom fa nu jànge ji woon fa lañ jànge ji donc xëy na nag suñu discipline nag suñu yar moo ñu may lu bari ñu cee dugg waaye loolu dafa war a dafa war a war a dakk beneen bi ci des mës ngaa dégg fi mu nekk nii daayira bu daje ba wala dongoy daara yii ak conditions yi mett yi ni nekk demal xel koom demal feneen léeg-léeg mën nañoo xëy duñu am ndekki duñu am café mën nañoo xëy fi mu ne duñu amub añ te ñoo ngay jàng ñoo ngay mokkal ñoo ngay amub yar ñoo ngay liggéey mas ngaa dégg dongob daara bu ne la daara ja tey génn nañ dañuy marché mas ngaa dégg dongob daara buñ la génn la ñoo marché ba toj nañ fi ab kaar dama ne gis nga réew mi dañ koo salfaañe te wax dëgg yàlla tuuti naa lool waaye sunu sëriñ si nañ ñu dimbali ci lool parce que ñoom ñoo war wax ci ñu jàppale daara jàppale ñi nekk ci daara yi su ci seen kàddu àddoo danañ leen jàppale waaye université Ndakaaru gee yéen sama gars yi xam nañ li may bu ñu demoon resto añ bi saf xolam képp ñu génn baale taliba tojkaar yi kooku xaw ma xam-xam buñ ko jox mais kenn yaru ko xaw ma xam bu mu am mais kenn yaru ko te bu demee ba def soutenance am moo xam maîtrise na waa mu am doctorat am kees guñ ko njëkk dénk mu dëpp mu këpp ko mais kooku maanduwul. waajaluñ ko daal. ah waajaluñ ko daal. mas nga dégg dongam daala bu ko def. déedéet nga fi dégg ñëpp ñu téye l'économie nationale kenn ku ci nekk fi mu ne ci bitiku mbagg la tàmbalee wala taabal la tàmbalee. Mhm. tey ji ñoo yor économie bi ñoo koy doxal. Mhm. kon dama ni senegal mhm. ñun dañoo jaawatle plan bu ne gis nañ ko fi plan Oméga PSEO plan nangam plan nangam dañoo sonn ci plan yi Serigne Touba yoon yu mu rëddoon mooy liy jëmale aw askan kanam. plan boobu lañ war a jël buñ bëggee réew mi dem ci kanam. léegi sëñ Babacar sànq da ngaa dégg da ngaa dugg ci pàcc bu am solo mi éducation ndax thème biñ nekk muy Touba et politique politique ku ko tudd sànq wax nga ko ci ni nga ko leeree ci kàllaama wolof muy loo xam ne si ni muy ñoŋalee askan bi la ba duñ mën a duñ xiif duñ ma duñ mar ba pare li leen xam moo leen di may xam-xam muy wàllum éducation kon loolu lépp ci politique la kon ñu xam a xam sëñ Babacar programme yi ñuy jël di ko dugal ci ci njàngale université ak école yi donte réew mi lu ñuy wax 95 pour cent de musulmans ba pare lu ci mel ne xas dëkkun kaati man ak sëñ bi lu mu ci bind comme li nga wax ci koo xam ne si jàng na ba am tees génn nga jox ko kees mu këpp ko amaana mu jàngoon kun kaati man ak njàngale sëñ ko def mag ñu baax ñi ñu fi bàyyi ñu koy insérer ci programme euh, école ak université yi gis nga man daal loolu li ko gën a mën a saafara mooy euh, nuñ ko tudde euh, kii officiel bi cérémonie officielle bu suba bii suñ ne woon li ñu bëgg mooy mbindum sëñ Touba ñu dugal ko ci circuit bi dana ko ci dugal xam nga sama benn xarit sociologue dañuy waxtaan mu ne politiciens yi ñoom xam nañ ñuy def parce que ginnaaw boo ñëwee ci sëriñ bi du la wax mukk ci nañ dimbali lislaam nañu dëgëral euh, euh, jikko yi nañu jël mbindum sëñ Touba dugal ko ci système bi wala mbindum Alaaji Maalik dugal ko ci ginnaaw wax ñu leen ko ñoom duñ ko def kenn da ko waxul kenn waxu leen ko loolu mooy li am li ñuy waxante xëñ na leneen la xëcc nañu ab tali defaral ni ma kër kër maam El Hadj Malick def nañ Ila Touba loolu ci service public la bokk loolu def leen a war bon su ma ci génnee xëñ na kër yi kër yi moom lu privé la. mais loolu taxaw askan wi la parce que seen i besoin la pour ñu mën di dem ak a dikk alors liñ leen waroon a wax mooy dañoo bëgg lii sëñ Touba bind day jariñ askan nanu ko jël ginnaaw déwén. mu dugal ko ci cursus bi nit di ko jàng catholique mën na koo jariñoo ku gëmul daal sax mën na koo jariñoo waaye bu fekkente ne waxuñu leen ko kan moo ko ci dugal mais kenn waxu leen ko gis nga dëgg yàlla rek ko moom kenn waxu leen ko di nekk di gërëmanteeg di santante ci loo xam ni état daf koo war a def loolu daf koo jarul léegi nañu fexe ba sëriñ ci dimbali ñu ci loolu wax leen message boobu su ko defee it ñun wala boog intellectuel yoon wi vraiment jéem a def aussi contribution ci loolu bind pour nit ñi xam ni toll nañ ci jamono joo xam ni dañoo war a jël en compte njàngaleem Serigne Touba xam nga jël njàngaleem Serigne Touba def ko ci circuit bi mais ñëpp ciy gañe koo xam ni bu ñu noppee ci moom du tooñ te ku ko tooñ mu jéggal mais sëñ Bamba kooku. ñëpp am intérêt ci ñu am nit ku mel noonu ci as ci penc mi. ci gën a doy na ñi nga xam si nekkuñu euh, Sénégal ñoo gën a jëriñu ci moom. day gis ay université yoo xam si nekk ca nasaraan yi ñoom dañuy jël ay njàngu Cheikh Khadim di ko donte sax duñ ko jàngale waaye lu ñuy tasaare lay doon nga xam si élèves yi ak étudiants yi képp kuy def recherche da fa dem te ñun nga xam si réewum Sénégal la nekk Cheikh Ahmadou Bamba feeñ fii jamono privilège boobu ñun ñu koo def. ah mais bien sûr parce que. génnewuñ ko ci penc mi rek mooy li ma la wax ni moom li ci gënoon a gaaw mooy ñu réglé ko ci tête à yi am kilifa gi bu toogee tey nga ne ko réew mi gis nañ ni jikko yi ñoo ngi tàmbalee ràkk gis nañ ni loo xam ne mii ñu ko woon ci penc mi ñu ngi koy tàmbalee am léegi nag mënu cee ñàkk saafara sëñ Touba def na nax ju mais nax ju mënuñu ko bind ci réew mii ba noppi ak yaree di ko di fi am parce que jànguñu nit ñi léegi loolu kon plaidoyer lañu war a def pour nahju maxaaliq kunkaati man di nga wax nii ak yeneen ak yeneen ba ci xilaasu zahab bu moom alaaji Malick ñu dugal ko ci circuit bi nit ñi di ko jàng mais lan lañuy jàngal ay Montesquieu Diderot ay Voltaire ay ñu kenn xamul ay Descartes ban njëriñ la ñu amal ban njëriñ la ñu amal amaluñu njëriñ loolu nag ñi nga xam ne ñooy régulateur yu social penc mi mooy sëriñ si ñoo téye réew mi réew mi politiciens yi te wuñ ko de sëriñ si ñoo ko téye parce que bu réew mi naroon a jaxasoo ñoom ñëpp taal seen oto ñëw sëñ bi wax leen kon sëriñ si ñoo téye réew mi la cohésion nationale ñoom ñooy ko garantir alors su fekkente ne lu mel noonu nag nañ leen wax ni kot attention bu ngeen jaaxlee dikk ci ñun ñu nit am na lu ñu leen di saskat mooy li sañ Touba di bind ak di ko wax nañu ko dugal ci daara yi nit ñi di ko jàng di ko xam pour lan bind ko woon ngir ñu koy teg ci ay bibliothèque di ko siyaare mais dafa bindoon pour ñu jéem koo jëmmal loolu suñ ko defee dana gis lii nuy jàmbat lépp ci bari dana soppeeku loolu mooy solution bi. wax dëgg yàlla sëñ Babacar wax dëgg yàlla am nañ mbégte lool naa ni képp koo xam si mi ngi bàyyi xel Touba wax dëgg yàlla dana am mbégte ak contentement ci leeral bi nga xam si xam-xam bu sell wax dëgg yàlla képp koo xam si dégg na sëñ Babacar Mbuub rek danga xam ni wax dëgg yàlla li wax maîtriser na ko ndax yàgg nañ cee dox li mu wax tamit ci wàllum taxawaay boobu nga xam si képp kuy murit waaye rawatina képp kuy borom xam-xam moo xam a xam si mooy géopolitique bi défendre li nga xam si moom la diine moom mu ci bay bay euh, xam ko ci xaar rek koy ko ñaanal suñu borom euh, li nga xam si moom lay def mu bi nga xam si sëñ Aziz Mbacke Madialis ko def euh, bokkoon na ci intervenant yi ak Ousmane Sonko ñoom moo gënoon a yaat si Touba bàyyi rek nga wéyale donte am fekkente am nga yeneen laaj a laaj suñu Babacar waaw ni nga koy xam solo ndax wax ji mu wax lépp dafa tegu ci xam ñuy déglu jataay bi sax bëgguñu mu jeex ndax ni jataay bi tegoo ci xam ni mu ko leeral dafa am solo ndax kilifa day jël responsabilité am ci li mu war a jël responsabilité am ndax Cheikh Abdou Lahad mi mu jël exemple na bu ne bu daa jot dana jël ay responsabilité ci mbir ma na mu ca war a taxawe ndax dafa am loo xam ne du taalu bi moo koy dugal ci bopp politicien mais sëriñ a koy dugal ndax sëriñ bi politicien bi ngi koy déglu ndax dafa am lu dox seen diggante waaye politicien dafa mel dafa am lu ñuy naxe sëriñ si mooy boo amee événement ñu ñëw yëkkati dara jox la boo toogee ci cérémonie bi gërëm leen su ko defee bala ñoo yàlla waat ak yow dara deween jot sa procès yi nga waroon a tegal yooyu yëpp doo leen ko tegal ndax damaa yaakaar ne kun kaati ma bu duggoon ci système éducation bi grève yi day jeex tàkk ndax sëñ Tuubaa kii jàng wax na ci waru garam kii jàngale wax na ci waru garam mooy problème bi kat yi am moo xam ñu ne ci université wala ne ci école yi problème grève yi ñu am léeg-léeg problème personnel lay doon moo tax léeg-léeg ñuy grève comme ni ko sëñ Babacar waxee léegi lekk ku naqari wala bourse bu tardé